la siyaar bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi. nuyu bu baax a baax di la di nuyu suñu kilifa yi fi toog suñu papa yi suñu maam yi di nuyu yéen journalistes yi di nuyu famille suma xarit suma lépp muy famille Ibrahima Diop di nuyu ay gorob di ko nuyu moom it bu baax Ibou di la ziar ci fi nga jóge ñaan lépp loo fa ñaan rek yàlla na ko suñu borom nangu di sant bu baax di la gërëm. comme li fi ñëpp wax sama papa yi wax ko père Pala père Bourkhane sama papa Moussa Diop sama père De Gaulle ak kilifa yi ak sa papa li ñu wax yëpp man su ma ci jaaree répétition lay doon. parce que am na nit moom lépp lu baax li bu def sànq ba léegi daa wax sama xel ne. ñu ngi wax ñu ngi wax lu baax yi waaye nañ ko lafal cat daal parce que baaxul. nit ki mu baax yëpp buy def bu ñu koy wax rek xam nga cat dafa gaaw daal ñu ñaan suñu boom lafal ko cat parce que Ibou baax la. waaw man bu dul dara man sama waay la man sama waay la suma xarit la moom xam na man xam naa Ibou fu mu ko ñoo bokkoon dëkk waaye fu mu ko njëkk a xàmmewee dama bëri ak ama neex ama neex daan ma ma nekk sama kër di jooy jooy met mënu ma génn ma tëju ci néeg bi de du ma génn supporter yi nekk ci suuf xam nga rek supporter seen mbëb daanoo di ko encourage di ko tàcc ñëpp ñu wax mënu ma génn mu ñëw fekk ma ci biir fëgg bunt bi ma ibbi ñoo muur géey naa ma génnal nga gis sa mun ma lii defal bi ma mun mun maa la ko wax tey moom moo lay def ma mooy làmb di bu sori loolu la ma wax mu jàpp sama loxo mu génn ma taw sama balcon nuyu samay supporter ci maa ngi ko fàtte si sama combat ama neex ba mu jeexee ci laa commencé di entraîner trois séances par jour musuma ko def maanaam pour rek mbër bu jugee ci defet lu xol bi di méttee munu ma nar sama premier defet ci suba sa ma réer six heures du matin dem ma jógee ñëw añ tuuti lekk tuuti démarche à domicile waaye ngoon gi ma dem contrat commencé ko yàggul Assane Ndiaye jox ma maag Dolph ma ñëw daan hmm. mu ñëwaat téye sama loxo ne li ma la waxoon hmm. boobu ba léegi nag kuréel boobu da koy féddali fu ma amee moo ñëwee bu jàppee sama hmm. loolu lañu àndee maag moo ma ko gisee rek image boobu mooy ñëw suma diggante ak moom nekk ay nit xarit tamit ma sopp ko loolu moom mu bëgg moom mu bëgg ko sama waay la ma combat fu ma am Ibou day ñëw taxaw day def loo xam ne sax dama naa Ibou ëpp na Modou Gueye lu am mboom moom boo gisee bu waxee ci man bu nee Modou Gueye la nga xam ne xam na ma parce que ñi may woowee Modou Gueye mooy Pikine ñi ma xam ñi ma topp mbapat ñoo ñoo ma xam ñoo ñoo may woowee Modou Gueye moom boo waxee moom sax doo dégg booy ñaar Modou Gueye la lay wax loolu mooy kii xam na ma maa ngi koy ñaanal suñu borom di ko sant tamit ci mbaru Pikine yëpp ci turu mbëru Pikine yépp ñëw naa fi waaye ci turu gaa yëpp laa fi ñëw parce que moom teraanga ñuy wax nii yëpp ñun la ko njëgee lim ñuy defar sax mënuñu ko wax ñun ñëpp hmm. ñu bu ñu toog fii di lim lu ñu ibu defar hmm. ñun fii la fanaan parce que defar nañu lu bari ay tëbaski xar moom loolu tax moo mucc hmm. waaw loolu moo gën a ndaw ci lu mu ñu defar parce nekk salle musculation entraînement ak ama ba pare ma daan ma foog ñu def vidéo ma sànni ko parce que moom dañuy vidéo whatsapp yëpp ma ko da ko ñu taxaw de sa yaa ngi nii pare entraînement nii na waa ko lii kontaan naa ci nag bëgg naa ngoon ngeen dem jëri xar yow ama seen sox ama ku ne benn te loolu rafet nañ waaw loolu rafet na parce que ñun am nañ njëgu xàll waaye moom da ko def xam da ko war a def suñu combat perso mi ngi koy wax léegi sama combat kon tafaati ni mu ci deful amul ba ma gaañoo ci loxo pare oto sapeur yi jën ma du daal taal otoon jëlee oto sapeur yi ñu ne hôpital principal ñu ne noonu dem leen dantak ñu dem dantak lépp mu ànd ak ñun ba mu jeexee ba ñibbisi moom ba yàpp ci otoom ñu ànd ñibbisi waaw moom suma xarit la daal daf ma sopp man de dama ko sopp baax ba tax ma la daal mm-hmm. koy ñaanal jàmm di wax yëpp ne Ibou ñun luñ ko loolu nga jàpp rek ñun jàpp nañu lu ko raw mm-hmm. te moom du mës a wéet daal mm-hmm. ba nit moom xol yàlla di fay comme luy père yi wax rek ñëw ñu fi sax pour xaalis nga def fi ñëw parce que Ibou jikkoom bu rafet daal oh. man xol bu naaj sax di laaj man ko koy wax rek ma ne ko xaw ma kañ nga xaw ma ci loolu ngay liggéey xaw ma làmb ngay kóol ne def xaw ma loo def waaye ci loolu def nag suñu moom day def jàmm parce que xol moo tax quoi mm. képp ku ñëw bureau xam nga loo fa soxla daal mu ngi nii man damay ñëw bureau bi ku ko doon seet ñàkk nga di tëj bureau bi maa moom nekk ci néeg lañuy waxtaan lépp mu génn bois suma bëggante ak ceen yaatal ma ne ko bàyyi ci liggéey nga ne bàyyi ma dem mm. mais suma waaye maa lay ñaanal jàmm mm. waaw di ñaanal kaar gi ràpp jàmm xam la ñaatal nga ñaaral ma incha allah ma yóbbu paa bi moom tamit. waaw waaw waxtaan baax yàlla ko yàlla sottil. waaw loolu mooy suñu mébét daal. parce que bu ñu gisee nii nga dem ñëw suñu xol day day set. bilaay ñu lay ñaanal jàmm di nuyu ñëpp ñu fi nekk. di ñaanal ñëpp jàmm. kontaan nañ bu baax a baax jërëjëf. yan qualité ngeen gis ci moom ba fal ba fal ko président 200 waaw booy bu njëkk rek mooy doomu Pikine la. ni nga koy gisee ni moom dafa bëgg Pikine. Mm. bu gaa yi lu bëre tension bi day yóbbu pression bi day yóbbu yeneen a koy gis sax ci yéen koy tooñee fu combat soq bi suñu combat noonu lay def fu mu toog du am jàmm da nga koy gis nii sax waaye fàttali sax moom promoteur parce que piginité bi day daw ci moom bu baax baax mm-hmm. loolu moo tax rek ku ñu faroon président neex na mais bu ñu ko faree président dañuy xam ne nitu làmb lañu fay président deux cent pour mm-hmm. dafa bëgg deux cent pour cent bi mm-hmm. moom njëkk bokk na ci ñi ma mbëkk yi woon téléphone mu mbër mu naa ah, dama bëgg yow Eumeu Sène Ama Sokh yeneen boo yëpp ngeen ànd boobu deux cent pour cent bi taxawul mu ngi ni maa ngi

xam nga moom ay kadoom sax moobu samay kadoom mu def ci man faram moobu li ma ko defal ma matul sax cinq cent soixante mille xam nga kalmet mm. jasière xam nga ma loolu mais jikko lu rafet mooy moom lu mu sekk ak man daal moom xam na man xam naa mm. lu mu sekk man Ibou sama waay la daal mbaru Pikine yépp tamit seen waay la mais personnellement man suma xarit suma gayan la quoi dëgg dëgg mm. loolu moo tax nag dama ko waxoon dama ko waxoon mm. ko mu ne ma mardi <laughs> mardi ma def na nag xam nga. Mm. mais mu ngi yegg si ne ma mbër yegg si naa ma ne ko wax dëgg de ma maa ngi woon jiitu aéroport. Mm. mais nag ma ne ma woo père bi ak sama papa ko xam ne xam nga na koo xam. mais dara ñu ngi koy ñaanal jàmm daal. di ko ñaan lépp lu mu bëgg. ci làmb suñu moom defal ko waaw parce que moom bëtam dafa rëy ci làmb daal. waaw di ko wax ne man teewal naa fi ëmma suñu mag teewal naa fi ama soq yëpp teewal naa jàppal ni man ñëw naa ñoom ñëpp ñëw nañ parce que boo yëpp képp kuy bëre ma xam naa yow xam nga nga yëkkati lu bari tagal ko ci taal bi ne ko demal après pas dama la enterré donc ñooñu moom bu ma ñëwee rek tàmpal bi na ñu ngi lay sant di la gërëm incha allah benn question mënta ñàkk drapeau Gaston Mbengue mën nañoo xaar sa participation nga ñëw bàkku Makan Mbengue di delloo njukkal mu am fu jaar ak yow jaar fa yeneen bëri yoo xamante bi nii bëri nañ si làmb ji le 7 août Balla Gaye Gris waaw loolu du wane drapeau Gaston rek da ngay wax drapeau mbëri drapeau ancien couloir yi parce moom suñuy papa la njëkk tëgg avant mu ñu tëgg moo ko père Zow ñaata doon la ko tëgg père sama papa dégool mi ñaata doon la ko tëgg keneen ak keneen donc kooku suñu papa la ba pare tamit ñu am lien ak moom mu lien contrat ñu am avance sama xam nga donc moom ci lu mu nekk rek Gaston dañ ci nekk suñu papa la ba makat man tamit sama xarit la fa affaire yi toll mi ngi may wari ma fi la nekk rek dañ ci nekk incha allah duñ ko seetaan bés bi dañuy ñëw xam nga mu ko bëggee ñu taxawee rek ñu ñu ni mu ko bëggee rek ñu defee ko incha allah bu soobee yàlla rendez-vous rek bu soobee yàlla incha allah ah. jàmm ci ñëpp waaw <laughs> waaw mais mais ñaa ñu ngi lay nuyu di la sargal yàgg sa doom nday jii nga dendal mm-hmm. euh, mais tey jii dañoo gis nga yor benn état de forme boo xam ne dafa jaaxal amaat ñun ñëpp ñu ñëw ci wàllu làmb tey jii boo ñaan sa ñaari adversaire di bëree la 7 août muy diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye de yëpp say adversaire lañu mais gis nañ ñett doo di nelaw am na looy waaj boo Niang la 7 août ñoom ñaar tey jii ca bés ba euh, ku ca am ndam lan nga ci préparé loo xam ne nii tey jii waa Pikine 200 pour cent bi dañ ci mën a gis seen bopp. waaw Faram comme li nga wax rek. man ci laamu bu ñu fekkee may tëdd di nal. wala mm-hmm. wax ak man quoi. dëgg la wala man yaakaaru làmb laa. man dawu làmb laa. parce que làmb ñaanuñu yàlla suñu mag yooyu génn làmb amatul relève ñaanuñu ko yàlla donc ku ma xam boo ñaa depuis ba comme ni ko waxee ku xam Modou Gueye ba fi ma doon am nit defi laa moo jógee ci defar rek mooy ñëwaat naa naa liggéey bu baax parce que bugguma xam dafa neexul daal man ma amee defar du ma mën a génn sax damay laaxatu gars yi sama pap mi ngi nii sama ko combat bi paas moo tabaati teg nañ ci ay semaine amul lu mu waxul pour ma génn pour dem ci ñi nga xam ne war naa dem si ñoom parce que damay jàpp ne ku ma xool rek damay jàpp ne defar googu nga may xoole daal bëri yooyu nga xoole wala laam sama bakkan laa ci teg waaw su ma jugee ci dara rek bu doy rek sama bakkan temps yi nawul amul nana amul fanaan chaque jour maa ngi ci laaj parce am gàcce daal bëgguma tamit ni ma am daal am gàcce mbir mi daal dama ko foofu ma jël au sérieux daal laam dama ko jël au sérieux trop mais gis nañ ne gis nañ ne ci wàllu entraînement da nga progressé lu garaaw a garaaw a garaaw te jëloo poids te muscle bi yokk na bu baax da nga changé méthode entraînement wala la nga daan def da nga koy yokku séance yi da nga koo yokku bu baax wala. waaw faram na bu ñu waxee dëgg rek laam moom mosu may simeeku. nga ne kii ñëw tëddoon di naraw wala xam nga. waaw ah, dama dama ko fonk comme li ma la wax dama fonk laamu daal. bilaay dama fonk làmb lépp lu mu wax dama ko ci def waaw comme ni wax rek nii combat le set ñu ngi leen ñaanal suñu moom dafa leen jàmm kër maire Gandiaal mel ñu bëre bu mu neex xam amateur yëpp kontaan quoi ñu ñaan leen jàmm bu baax a baax waaw comme da ngeen di baax di wax état rek waaye fii dara néew gi xam nga li des na bëri na bilaay parce que xam nga kii bu sori yéene xam nga toog xam nga ñëw ci kii bi mënoo leen visite état état mënoo ko bay gis yaa ngi jël le set Gaston production incha allah Gaston production xam bu ñu yaatal dañoo ñëw pour Ibou moo tax sànq ba ngeen ma waxal man la bëgguma wax xam naa ne foog ngeen yaatal. dañoo ñëw pour kii. mais nag nga ñaanal jàmm faram faram. faram la set kan nga faral loolu la Lamine laaj jar naa tontu wax naa la ko Gaston production laa faral. waaw gars yi waaw kii rek lay ñaanal jàmm. kii lay ñaanal jàmm. waaw waaw waaw moom di ko ñaanal jàmm rek. wala Ibou xol bi moo yaat xol moo yaatu moom boo boo jëflanteeg moom sax boo paree da nga daan ah Ibou xanaa da la jaawale xol bi moo yaatu daal moom grand bu baax la daal bilaay maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal lépp lu mu bëgg ci làmb suñ moom defal ko ko bu dul làmb sax projet yi mu teg ak ci yéen yu muy liggéey parce que moom li liggéeyam du làmb daf koo bëgg rek mu nekk amuram mais lépp lu mu teg ak projet bi yëpp suñu borom de ko jàmm ci barke fu mu jógee barke Màkk ci barke Mérine ci barke Kaaba ma koy ñaanal baax ko naat jaww yi incha allah jërëjëf. jaajëf Kalidou yaakaar naa